bismillahi rahmaani rahim auzu billahi min alsheytaani rajim laa xawla wala quwata illa billahi alali alazim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin sayidina wa mawlaana muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi tayibiin attahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin allahuma sabit lisaani wahdi qalbi bi jaayi saydina muhammad salallahu alayhi wa sallam antaqana allahu allazi antaqa kulla cheyin wa xalaxakum awala maratin wa ilayhi turjaun rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim rabbana ixfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nu taamoo ubbi bismillahi rahmaani rahim ngir sàkku ci yàlla mi nga xam ne dafa kennal boppam foofu di baat bu muy ubbee ay kàddoom nu taamu ko ngir li ko yàlla taamu di ko ubbee ay kàddoom nu ubbee ko sunuy kàddu ngir sàkku ci barke baat boobu ak ndey boroomam yàlla na nu yàlla gunge ba nii nu ko doore ci bismillahi rahmaani rahim nu sottale ko noonu ci alhamdulillahi rabbil alamin di nuyu jiital nuyoo sunu xalifa Seydina Baye Abdullahi yal na sama boroom dolli fanam dolli wéram ak njaboot gi ci gannaawam yépp yàlla guddal seeni fon dolli seeni jàmm yàlla na sama boroom defal leen ay xéewal defal ko mboolem jullit nu toog fii nag tey ci kàddoom moom ci li yàlla dogal ngir wax ak waxuma taalibe yi waaye jullit ñi yëpp àddina bi yëpp ndax lii xew nu fa yéene cee wax boo ñaanee mucc ci ñaanaloo ñi ci desit mën na dal nit kooku nit kooka wàlli la baa mu wàll sa njaboot bu mu agsi ba si yow dañuy ñaan yàlla mi ko fi dugal te am saafaraam yal na ko yàlla saafaraal génn ko ci àdduna bi li ñu ci wax mooy ñun njaboot gi yëpp bi mbir mi amee dañoo dajaloo waxtaan bi nu waxtaanee ngir génn sunu kàddu àddu ci mbir mi ndax sama maam dafa wax ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi nu daje waxtaan ak samay mag waxtaan ak samay rakk waxtaan ak njaboot gi comité d'organisation bi te Seydina jiite leen bés bi nga xamee ne nasoon nañu ngir def waxtaan wi yàlla def aw tiis dal ci sunu kaw ci bés booba fekk àddina gépp a ngi toog dinu xaar muy sunu mag soxna Binta Lay mu Seydina Ababacar na yàlla dolli ay leeram loolu moo tere ñu wax ndax fii kàddu gi benn kàddu la Seydina Abdoulaye moo ko moom bu amee ngànt rakam ju fa sës yaa moom la bokk ni charte iman nga gëm yàlla gëm ay malaakaam gëm ay téeréem gëm ay yonentaam gëm bés pénc gëm ay dogalam nag ba ca neex ak ba ca naqar yépp jullit dafa war a gëm dogalu yàlla ba loolu amee nu xam ne lii yàlla dogal na ko te sama boroom bu dogalee rek dangay nangu ñu ñaan ba ñu ñaanee yàlla yàlla wax ne yaa ayuha allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli wattaqullaha inna allaha samiun alim bu leen yéen way gëm yi di bu leen jiitu yàlla ci dogalam te ngeen ragal yàlla te xam ne yàlla dégg na yàlla xam na kon dafa mel ni loolu moo doon tontu sunu borom ba ñu paree nee naa def nañu sunu examen nañu xaar résultat yi ma ne leen diggante bi nag matuwaay yu ñu fi war a jël nañu ko jël déggoo ceeg yi nga xam ne ñooy kilifa àdduna yi nga xam ne ñoom lañu cay xam ñun xamuñu ko ci ndax lu mel nii mosoon naa ñëw ci kër gi 1902 boobu sama maam Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam mi waral oote bi nga xam ne bu ootewul woon du ñu wax appel yàlla dimbali ko ba mu oote ba matal dem Seydina Isa uutu ko ba matal dem Baye Mandione uutu ko ba matal dem Seydina Isa mu ndaw mi nga xam ne màggal gi ñuy ab màggal oote bi ci moom la jóge te fukki at ginnaaw bi mu toogee la mu tombeek centenaire ba ci la nag ginnaaw sunu maam oote na ba am téeméeri at war na noo daje màggal ko sante ko yàlla moo tax décision benn mënu ko séejal bu dul lii nga xam ne moom la ñu dëgmal te bàyyi laay daaw ko màggal bàyyi laay daawul appel mooy boroom oote bi sëy naa isaa daawu ko màggal sëy naa manjoon ak rakkam sëy naa baabakar daawuñu ko màggal Seydina Isa mu Seydina Mandione mi jëkk a nekk sët bi jëkk toog ci xilaaf ak Seydina Limaamu loolu ndam la ndax xeex ba ñu xeex Seydina Limaam bu dul woon ak ndimbalal yàlla kon amaana doom yooyu duñu toog ba jeex ba sëtam boobu toog ci xilaafaam téeméeri at yi mat ci toogaayam ci la dogal dogal yi tey muy appel bi kon ñàkk kaa def ci façon bi ñu ko daan defee te ñooñu ñu jiitu ñëpp daaw ñu ko defee noonu daaw ñu ko def ndax day tax ñu am bàkkaar ndax day wàññi dara si sunu ngëm sëy naa limaam li war ci jullit mooy dégg ak topp ca la ka neex ak la ka naqari illa an yumara bi maxsiyatin lu dul ñu digal ka mu moy yàlla fa isa umira bi masiyatin fala sama wala taa bu dee dañ ko digal naka moyal yàlla nag warul dégg warul topp waaye defe naa ki leen a fegal sa bakken loolu ci jaamu yàlla la wala tulqu bi aydikum ila tahlukati bu leen jël seen loxo di dugal ci lu leen di alak wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima bu leen rayit seen bakken ndax yàlla kat ku am yërmande ci yéen na Issa taxal ci Cambérène fa mu jëkkoon a nekk taal kaas ya fa newoon taal ña ca jotoon feebar ñu quarantaine leen pour ñu leen di toggal ñu nekkoon convalescence am fu ñu leen teg pour kenn bañ a jox sox sa morom xam nga booba metti na te mag ñi dañu nangu woon ndax jaama bi yàlla la yàlla mi ko yobal fekk la mu ko digal matalu ko yàlla rek a xam ak kañ lay doon moom la ñuy ñaan yàlla yan na ko yàlla gaaw jeexal ndax ko xam la ci nekk lépp nga xam ne mbir la moo xam ni li war bépp jullit mooy yàlla na gaaw jeex yàlla na gaaw jeex ndax conséquences yee tax waxuma bakken bi waaye yeneen ak yeneen yi ci topp ñàkk liberté bi ñàkk war a mën a dem marché lu demee nekk nii ñàkk saafante nattu la nit da koy nangu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir wal qadari xayrihi wa sharrihi gëm yàlla gëmi malaakaam gëmi téeréem gëmi yonentaam gëm yowmal xiyaama gëm dogal bu neex ba ak bu naqari ba lii nu dëgmal li ñu ciy bañ mooy mbooloo mu daje te nag nun laay danoo am ñeewante lool si yéen lii ma wax ba bi may commencé ku déglu xam ne wax dëgg yàlla diis na ci sama xol naxar wu ngeen ci am wu ko raw fuuf mu ngi ci ñun jéem nañu lu ne waaye yàlla kenn du ko jiitu joo dogalam bu ñu sañoon nan ko daan defee ñu defe ko noonu waaye nee naa yaram day feebar waaye bésit day feebar quarante bi ñu feete waroon a feete tey lii am nanu ko sant yàlla yàlla lu mu bëgg nattu ko lu yàlla bëgg rek nattu ko ku yàlla bëgg it nattu la téeméeri ati tampon ba ñeent fukki at yi ba ko bàyyi Seydi Thiaw dogale ba tey yàlla def li loolu ak sant yàlla kon nu ngi digal taalibe ci kàddu xalifa bi xam nga bu joxee ndigal ay rakkam yépp dañuy wéyal ndigal loola man maxtaar sey naa ma joon imam bachir ma waroon kaa séq ak samay rakk man ca Cambérène maam libaas sangor imam maxtaar ci yor yor ba nun danoo xir si seen bakken bi bu ñu sañoon laay fel sax du tegu seen yaram loolu fa ngeen xam ko te xam ne lii am état décrété lii mu décrété ndax ñoom loolu mooy seen responsabilité di ñaanal yàlla may leen si ndam ndax xam naa ne <laughs> kilifa réew mi fi mu ne nelawul guddi nelawul bëccëg ministre de la santé noonu àddina gépp kenn nelawul te nii mu dale réew yu am doole yi ak yàqamu mu metti mam fay yàq ñun ñi néew doole yàlla tere bu duggoon fii kon lim fi yàq ëpp ndax amuñu moyen yooyu kon nag lépp loo xam ne daf nuy dimbali si yàlla sorel na ko dimbali nu ngir mu ñu mucc ci kenn ku ne war nga caa jàpp ba tax na appel bi kenn ku ne na nga toog sa kër mu ngi mel ni tey nga tàmmoon di julli ji jàkk nga am ngaan te toogal sa kër da tere am ak julli appel bi kenn mënu kaa bu bés baa dinañ xam ne bés bii la Seydina Limaamul Mahdi di oote woon ku ne toog si sa kër mu mel ne rek appel en famille ku ne toog sa kër yor sa kurus bu kenn invité kenn ndax bu loolu amee rek dajaloo daal di am amul invité kenn kenn ku ne na nga toog rek sa kër yor sa kurus loo mën a berndeel sa njaboot nga def ko bu kenn invité kenn néew ñu appel en famille kenn ko ni di ut kenn koy invité ndax dina am ñoo xam ne dinañu jóge fa feebar ba am ñëw ci xew fekk yow jël nga say matuwaay ñu indi ko dugal ko fii te bu ëllëgee kat noonu bu nu sañoon du nu dégg ne cas bi am na Yoff bu nu dégg ne kaa bi am na beneen ba Malika ba appel bi fi waral euh, mbir mi law loolu ñu ngi koy ñaan yàlla waaye yéen ci mën a dimbali yéen ci mën a dimbali yéen ñu ci mën a dimbali loolu lañ ne dinañ leen ko ñaan du tere nag bés baa kenn ko ne. fa nga toog dinañ yëg ne appel am na ndax média yi nun sax dina nu fekk si fi nu toog nu def waxtaan yi nu daan waxtaan ngeen toog ci seeni saal di ko déglu plateau yi itam dinañ ko wéyal ko defee ñëpp xam ne tey la appelu naa Limaamu dinañ xam ne ñoom kat nañu nekkoon ay royuwaay ndeke dara soppi ko si lu daan am ñoo daan jiitu ci joxe bon exemple ndax sey naa isaa defoon bariwul fooy dégg kilifa diine ku ko def kon nga xam ne ku mat la woon téye na diineem waaye téye na àddunaam am ku amoon maslaa ak autorité yi la ku amoon maslaa ak autorité yi la boo xoolee ay correspondance am nga xam ne kii homme d'état dëgg la woon te mooy sunu rayuwaay lii daal laay maxtaar mooy ndigal li te bu ñu forcé lillahi wa li rasuli mënu leen gëm ba pare bëgg noo weddi waaye ma njoon nee na genn kanam kenn mënu see jaamu yàlla bëgg ka caa weddi weddi nu nag mooy nu ne lii la bëgg ngeen di ñu jaay ne yéen nu gën a gëm ñen nañi laa wax ndax xam naa ne du ñëpp na ci ñoo xam ne bu ñu déggee ndigal la rek daal di koy jëfe waaye bu kenn forcé ay yor yoori jàmmalaay yooyu yëpp nañu ko teg ba jamono neex su lii jàllee nu waxtu wu nu neex mën na leen oowaat nu dajawaat jàmmalaay def ko ñaan yàlla def ko ak sant yàlla état it <clears throat> ko engagement yi mu jëloon yëpp ci CRD ak yooyu na ko wëyal mel ni rek appel bi day am nañu daan manqué foncier engagement yooyu yëpp boo ko defee loolu dina wéttali laayeen yi ci seen wéetaay boobu keroog engagement yuñ ca jëloon rek nu ngi koy ñaan état di leen ñaanal yàlla di wax na jamono bii ñu toll nag xiiroog ŋaayoo jamono bii laaju ko muy état muy opposition ñépp nañu doon benn ñu suudewu ndax góor ga dafa jàngal doom ji ba mu yàgg mu jël benn bale bale sëgg yi ne ko damal bale xale bi lem mënul dama mu daldi koy tasaare ne ko damal mu dammat yépp mu ne ko su ngeen booloo kenn du leen mën a damm waaye bu ngeen tasaaroo rek neex a damm kon jamono bii ñu tollu foofu la àddina toll loolu la jamono laaj maanaam loolu la ñu waxante woon eh, nu ngi gërëm ñépp di sant ñëpp mu ngi ànd ak no nodd gi yàlla nay seed ak sunu boroom asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa